maaleykum uh, man la Siré Djigo marché centrale bu Thiès avenue général de Gaulle laa nekk uh, tey moom dama am lu ma nakari lool te ñu yàgg koo jooytu tey moom dama ne woon tey tey duma tijj tijji sama place tànk gars yi ñëwuñu ba xool lii gisa tey ba mu tawee suñ place yëpp a dugg mu ngi nii dafa fees dell ak ndox dafa fees dell dell dell autorités yi nag woo nañ leen ba sonn wax nañu wax nañu fépp mun mënut a dem dem nañ fa pour gars yi jàppaleen si mais dara dara baaxul Euh, ba tey suba ma wax ak Ousseynou Ousseynou ne ma nag naa woo euh, journaliste yi dinañ fi ñëw tey bul laal place yi à place yi tey boo tijjee place yi plus de xaalis bu bëri lañ perte wallahi tey dama sama bagage yu bëri dafa yàqu dugal place bi nga xool place lu bëri dañ koo ñàkk tey ndax ndox mi di métti na lool tey suñu autorité ñun dañuy fay suñu droit ba mu mat sek juuti chaque mois dañuy fay pétante même chose mais gars yi nañu siggi xool xool xool suñ marché bi ñun dañoo sonn ñun lii lañu am amuñ lu dul marché lu ñu gagné fii moom la ñuy dundal suñu njaboot mais bu ñu toogee une semaine liggéeyu ñu dafa metti dafa metti neenañ bi Bousso moo ñëw moo yor affaire rigole bi Bousso woo naa ko ay yoon yoon filmé naa ko ndox mi nu mu duggee yëpp envoyé ko même chose waxuñu ci dara mais ñun kon fan la ñu war a jaar pour wax ba ñu waxee ba sonn xamatu ñuy def ñu woo journaliste yi ñu xool peut-être euh, ñoom den ñu dégg mais sonn nañ loolu bëgg nañu jàppaleñ ci nag métti na lool Baba